auzu billahi mina sheytaani rajim laa xawla wala xawata illa billah aliyul azim salaamaaleykum mbooloo bi maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam du negu ndax ku xam racine xam soppe yi xam ñi ñu àndal xam ne lii moom taarix la fi ndax fu nu wootee mbooloo mi rotsee fu ne waaye tey dañoo wootewut dan ne dañuy def point de presse lu yëngu lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole jamono day dox fii ñu toog tey am ñu ñu àndal ku dégg suñu taabal ñuy tudd di wax Lat Diop di tudd Néné Fatoumata Tall di tudd Aliou Sall te ma toogoon ci saal bii ngeen xam ni tàggoo woon nañ tey dana jaaxal ñu bëri mais ku déglu rek dégg gor teraanga da koy tër te olof njaay da koy wax nit boo xamul foo jëm boo xamul foo jëm da ngay say xaritu démb naam nee naa teraanga day tër gor waaye yéen xam ngeen ni man ak ñi ma àndal na muñ dara ndax lu gaa yi lu gaa yi bàkkoo ñun dañ koo këllamtikoo kon dal boobu lañu àndal daam nag loo xam ni dama bëgg ñëpp xam ko man fii laa fekk baax fii laa ko waxee woon fii laa yaroo juddoowuma fi mais dëkk boo ci defee 44 ans ba 45 ans bu ñuy nettali taarixu dëkk boobu am nga ci kan te yaakaar naa bu ñu demee élection génn ñu xool la ñu jot am ci liste ba ñu àndaloon xam ni koon liggéey nañu ku xool histoire Guédiawaye ni mu demee ba ñuy xëccoo adjoint maire yi xam ni kàddu gi ñun ñii ñoo ko yoroon fa ñu basculé moo tax tey Benno Bokk Yaakaar mën a am sept adjoint maire à la ville de Guédiawaye ci turam ñun suñu lis mennum ñun kese ñoo am ñaari adjoint maire à la ville muy man ak Fama Diakhaté ñeent ya nga xam ne ñoo nekk ci ville de Guédiawaye ñun ñii ñoo ko sur quatorze ñu am ñeent kon ñun gàcce gaalaam sur quatorze ñu am ñeent ñu jox Benno euh, sept jox maire bi fi nekk ñett te lii may wax ku ko weddi rek na dem ci presse ba ma koy def mi ngi ne fang ñëpp di ko gis ci télé bi mhm. ku ma ne kii la ñuy fal moom la ñuy fal kon yaakaar naa daanu mel ni yaa daan sant yàlla su ma ko mënee nag yéen a dox ndax racine kese peesewul mhm. waaye bërigo bu diis yëngal ko day jafe ndax ku xool jataay bi ni mu taaroo dèjà man ak ibnu rek yëngal na réew mhm. waaye man ak ibnu ak jaali tas na dëkk nga dellu xool fellu Bocar Ba mais kon daj nañ département bi Fama Diakhaté ñëw Saliou Goyta Marème Dieng Alifa Sada et cetera et cetera et kon xam ngeen bu ngeen ñàkkoon ñëwaat na waaye li tax mu ñëwaat nag mooy jaaxal nit ñi loolooy ëlëm bi moo lënt ñëpp xam ngeen ni ci diir bu gàtt damaa ñàkk sama waajur mu métti lool waaye département bi yëpp bokkoog man sama bët xonq ma am naqar am tiis te ku ne xam na sama baay toll ci man naam samay xaritu démb nag taxaw ci taxawaay bu ràññeeku ma di sant di leen gërëm looloo tax ma ne gor teraanga da koy tër lu fa waay indi rek fekk nga ko fa waaye lañu yéen seen micro ngeen di toppatoo <laughs> donc dama ne nit ki lu nit indi rek fekk na ko fa waaye dafa am loo xam ne bu jógee feneen ñëw ci yow day far loo amoon rawatina ñoo xam séqoo kook ñoom danaa ko wax ci tele parce que man duma ma sëkk jëf du neenal kenn sa kii donte dërëm la fa nit indi doon na million ci man madame la ministre ñëw fa def délégation bu rëy indi fa enveloppe bu rëy def fa teraanga ñëw bokk ak man bés bi yendoog man mu rëy ci man lool le DG Lat Diop sequma ko ak moom mag moom ñaari yoon la ñu mos a gisee yàlla mi ñu tiim xam na ko mosuma kaa sollicité suñu tase woon ci mbedd mën naa koo bañ a xàmme mu xëy suba woo ma jaale ma ko gontu ngoon yónnee ma rakkam xaw ma magam muy indi fa teraanga gu rëy ma xëy suba Aliou Sall yónnee ma chef de cabinet xëy suba mu yegg si fa yónnee fa teraanga gu rëy lañ fa yónni yépp fekk nañ ko fa waaye nit ki nga joteek moom tàggoog moom dem élection wuti sa liste nga am naqar mu ñëw ne la massa bokk ci ñi la njëkk ne massa yaakaar naa gor day ruus nag gor day ruus bu yemoon foofu rek day doy sëkk bu yemoon foofu day doy sëkk waaye li nga xam ni mooy cerise bi ci kaw gâteau bi président de la république yër na yëg naqar bi dal sama kaw woo ma jaale ma ko ne ma xam naa sa digg ak sa baay ni meloon su ma ko yëgoon ci teew teew bi laa fay teew waaye maa ngi bokk ak yow naqar bi man geste mënumaa touché bu raw loolu yéen ñi ma àndal xam ngeen ni yónnee nañ ci man ñaari yoon di ma woo yónni na fi premier ministre Mimi Touré mu ñëw ba fii ne ma président ma yónni ma ne ko man aw ma soxla ndax boobu pare naa ci te tourné naa te yéen xam ngeen ko. ñu yónnee waat jataay boo xam dañoo woo ñëpp ñi meroon ñun ñii ñëpp kenn demul parce que pare nañ ci waaye président woo la massaw la même bu la joxul benn teraanga damaa bëgg ngeen dégg ma du teraanga am fa yóbbu ndax jëleewu ma fa teraanga mu massaw ma ma xëy ku ñu naan gendarme kamara naam directeur Lat Diop moo ko dox. ak ministre Néné Fatoumata Tall ak Aliou Sall mu woo ma ne ma président soxla na la yow ak ñi nga àndal ah man na nag ginnaaw kii defal na ma teraanga gii dinaa dem wuy jug laata may dem ma dajeeg sama njabootu bopp gii ne leen de woon nañ ñu ba sonn ñu bañ waaye lii nag woote bii daa wuute ndax ginnaaw moom moo ñu soxla te nee na pour l'intérêt supérieur de la nation danaa dem wuy jug seen baat laa demee ba ma demee ñu saafonte waxante ay kàddu yu rafet mu ne ma nag damaa bëgg ñu waxtaan réew mi daa toll foo xam ni kenn du ko tey tayle dañu toll ci crise dafa métti te cohabitation du loo xam ni Sénégal toll na foofu mu ne damaa bëgg ngeen ñëw yow ak ñi nga àndaloon ñépp ngeen jàppale ma man président de la république bu leen xool nit yi may teg ndax moom ci boppam ba ñuy wax xamul sax ñan ñoo lekk ci liste yi waaye mbooloom ku ma ci teg rek na ngeen ma ko jàppaleel te xam ne man sama jëm jii moo tax ba mu ma waxee loolu man noppi naa lijjanti ñan ñoo nekk ci liste yi ci laa ko ne président na fi yem liñ ñu wax dinañ ko def la tax ma tontu ko boobu xam naa ne sama njabootu bopp gi lu ma jël décision danañ ko def ndax sama xew boobu ba muy dal ñoom ñoo nekkoon ci waañ bi ñoom ñoo nekkoon ci ndugg yi ñoo nekkoon ci organisation yi ñoom ñoo ma njëkk a taxaw te lu ma dal dal seen kaw su ma nee waaw ñu ne waaw su ma nee déet ma ne déet ba ma jógee foofu ma dajewaat ak sama nawle yi nga xam ni gënuma leen ci dara nag ñu wóolu jiital ma ñuy ay conseil di ay adjoint maire comme man ma wax leen li tax président ba ma waxee ci saa si ma tontu ko ñu ne ma ñun ñëpp ànd nañ ca loola lii moo waral ñoom ñu ñëw ñoom ñëpp àndaat ak man ci taabal bii xamal leen ni président li mu wax ñu gënga ko ci élection yi nga xam ni mi ngi suñu kanam xool nit yi nga xam ne ñoo fa nekk te ay nitu boppam la te choix boppam la fas ne nañ ko cee jàppale ba yàlla may ko cee ndam lii mooy wax ji nga xam ni bëgg nañ ko booleeg bokk ak askanu géejawaay bëgg ko booleeg Sénégal yi yëpp li ñuy wax nag nëbbatuwuñ ci soxlawuñ ci permission kenn suñu njabootu bopp la ñu dajale te sañ nañ leen wax fu ñu xool te am nañ yaakaar fu ñu xool da ngeen fay xool lenn nag dama leen koy wax naam ñoom nag ñàkkoon nañu ndax suñuy baat kon ñun bu ñu ñëwee war nañoo gañe mhm. ngalawaay bu ñu naxante mhm. ni ñu sonnee woon ci législative yi nga am suñu bopp lañ soon wutal di dugg kër par kër koñ par koñ di réunion ba bët set taluñu ko lekkuñu naanuñu ngir ay daraja wala ay ndom nañu laxasaayee noonu noonu ndax xam nañ ni kiñ ko séqal bu yàlla defee li gën dana yokk réalisation yi nga xam ne jotoon na ko def ci géejawaay Guédiawaye delluwut ginnaaw mooy troisième ville du Sénégal xool leen lim fi def comme réalisation bu dee grande mosquée président def na ko fi bu dee université président def na ko fi bu dee BRT président indi na ko fi bu dee leneen ak leneen ENO indi na ko fi réfectionné stade yi def na fi des réalisation majeures yoo xam ni c'est palpable te loolu yëpp dafay gën indi un mieux-être pour la population de Guédiawaye